bi di CEDEAO jàpp na ni nguuru Sénégal jalgatiwul protocole bu 2001 ci seen rapport bu 51e session du conseil de médiation et de sécurité ñuy dëggal li njiital Sénégal yi wax yooyu njiit xam na ni amul benn ponk ci loi électorale bi bu ñu soppi ba tey ñu dolli ci ni ña nekkoon Sénat seen mandat dafa jeexoon CEDEAO di dëggal ni kon ndogalu njiitu réew mi fal waa Sénat yu bees yi dëppoonu ak protocole bu 2001 boobu protocole wax ni kenn warula soppi benn ponk ci loi électorale bu ñu xasee dugg ci juróom benn weer yi mujj balaa élection lu dul ni ñi ëpp ci way politique yi dañ koo nangu ba tey protocole bi di wax ni lépp luy kuréel bu yëngu ci élection dafa war a sori ñiy jongante moo xam ci nguur gi la wala ci kujjee gi yooyu ponk yëpp CEDEAO jàpp ni nguur gi wàccoo na ak ñoom waaye li ëpp ci ñuy jàngat politique jàpp na ni soppi bi ñu soppi ñi nekk Sénat mën naa xajamal élection bi nu jëm